bismillahi rahmaani rahim auzu billahi samiil alim laa hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim wasalaatu wasalaamu ala asrafil sayidina wa maulana wa nabiyina muhammad imaamilaayil mahdi wa ala alihi wa sahbihi wasallama ziyaar mbokki jullit bu baax di leen jox seen di ñaan jàmm yàlla na ko yàlla wesaare ci àdduna bépp rawatina Sénégal gi ñu nekk waaw tey nag ñu indi woon secret boo xam ni ci ramli la bu ñu wax ayuba alayhi salaamulaahi ramli nag xam-xam la bu yàlla wàcce woon ci ay ci ab yonentaam mi yonti yàlla Idrisa alayhi mu jox ko Jibril mu jox ko Idrisa alayhi salaam mu ko doon jëfandikoo muy xeetu xam-xam boo xam ne danañ ci jaar listixaar ngir xam nit ki ay mbiram waaye it danañ ci jaar ñaanal ci nit mu ubbeeku waaw bari na nag yoon woo xam ni dana defar waaye dana lor lii nag ñu leen indil tey dafa nekk secret boo xam ni nit ku ko jëfandikoo koo xam ne danga nekk ci ay xat-xat wala looy lijjanti mu jafeñ lool daal di tar lool nga gis wërsëg bi taxaw nga am njaaxare xol ak jaxle moo xam feebar la lépp loo xam ne daal tiis la rek ak njaaxare sunu boroom dana ko dindi incha allah waaye nag sangat lay doon bu nit ki di sangoo ci yaramam lu toll ci juróom-ñaari fan bu ko defee mboolem loo xam ne gàllankoor loon sunu borom rocc ka ci yaramam dindi ko ci dundam incha allahu moo taxoon ni indi ko nag di leen ko présenté képp koo xam ne aajoo nga ko rek nga wooñu incha allahu ñuy liggéeyal la ko ci kàttanu yàlla waa numéro bi nag 78 la 278 59 84 moom mooy numéro whatsapp bi waaw moom it ci la ñuy uyoo appel yi incha allahu rabbi wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalina sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi